Idrissa léegi-léegi yaa ngi naan folklore bi dafa bëri ndaxaate bi dafa bëri mhm. tey parce que médias yi dañoo bëri site internet yi bëri ku nekk day génn di wax mhm. gisoon nañ fi benn cas ku mel ni Thierno Moule Sow mhm. tey je crois que seetaan nga ko tey kookul yow en tant li nga xam ci diggante jinne ak rab li mu doon def est-ce que faju jinne la wala du faju jinne waaw li mu doon def moom maa ngi koy nuyu au passage sax man euh, dafa am lu leen rek lu ma ci naqari moom si ay mbiram mhm. di nga xam-xamam mhm. ndax mu ngi def social te mu ngi jàppale doomu adama njaay mhm. waaye dafa am benn émission bu ma mës a seetaan mu ne lëg daawru maccu doom la maccu doom waaw luy loolu moom maanaam mu ne lëg daawur ab taalibeem la ah yow taalibeem moom non non nee na lëg daawur ah, taalibeem lëg daawur mooy taalibe Thierno Moule waaw nee na moom jàpp na ay doomu lëg daaw ndëg daawur si boppam dina jël si njabootam mhm. moom xamul ne Ndakaaru ku fi bëgg a neex la di nga jaar si géej gi su Soumbédioune tuurul ndëg daawur mbay il n'a rien compris ce qu'il parce que euh, lëg daawur <laughs> dégg mun ngay wax turam nii nii rek de mais bis bu bërëtee ba ñëw fekk si la billaahi wallaahi wa taala nga daw muy faj nag li muy faj si wàllu jinne lay faj parce que ñooñu ay jinne ñoo leen dugg déggoo ma ne la mhm. jinne yi ñoo dugg ñoo dugglanteeg nit ñi mhm. actuellement jinne yi ñoo nekk si biir nit ñi mais munul jàpp ndëg daaw moom rab dimension rab munu ci parce que rab dafa am ñu ko moom maanaam waxuma xamul yàlla may na ko mais dimension rab dafa am ñoo xam ne suñu borom da leen a may pajum rab ak pajum jinne ak paju pajum cosaan maanaam pajum cosaan dafa am waaw waaw mais li muy def day faj ay jinne parce que damaa ngi koy suivre mu ngi wax jinne ji di wax lool lool loolu logique la parce que li muy def noonu kiraama la kiraama lay def day wax jinne ay jat yooyu def wax ak jinne ji te jinne ji kidnappé ko jàpp ko jinne ji génn si nit ki nit ki doon nit doonaat nit dem xëyaat nekkaat si ay activité am li muy def loolu dañ koy rafetlu loolu saa existe lu am la léegi yow ci sa biir wax nee nga lëg daawur moo la tànnal boppam seet si na la ñaari tali mhm. nga ne jëmmam fu ma nekk mu ñëw fa nga ne jëmmam fasu benn tànk la ca kaw jëmmu nit ba mu egsee ci yow yow lan moo tax nga taxaw toxaw dékku ko lan xam nga xam nga tey ji ah, euh, dañoo ni ndonoo wóor lu waaye doon mu dëgër hmm. waaye man tey fekkoon li ma nekk yoon bi ma nekk du dëgg hmm. may tudd turu ndëg daawur ndëg daawur kilifa la goo xam ni maanaam képp ku koy fontoo balaa bés di dellu si nga gis ko man temps déggalu ma xanaa waaw zéro fu mu jotee laay dugg si géej gi di rey ay nag zéro heure zéro wala lu mu gën a guddi rey ci géej bi ay di dugg di xuus di liggéeyal ay ay nit di leen fajal seen soxla si biir ndox mi te am na ñoo xam ne amaana ñooñ naan dañuy bàkkoo ndëg daawar maa ngi leen gis temps yi yëpp si télé bi ñuy bàkkoo ndëg daawar naan ndëg daawar ndëg daawar billaahi koo si yóbbuwoon Soumbédioune géejum min bi mu daw génn géej gi ndax mbëkkante naa fa ak ay sëriñ bi ma ñëwee taxaw si géej gi net vendredi passé dañoo daw génn géej gi xajal ma ay sëriñ nga fekk foofu déggoolu ma koo xam ni guddi ñu toll day def ngan lu maami buzz kan la xaw doo ñu ko wax kunkande kunkande waaw dafa daw géej gi sama géeju maam la déggoo bi ma xuusee si nekk sama biir oto toog si tefes gi taxaw mhm. su mbéjum ginnaaw ginnaaw Magic Land fi ñuy lakk ay jën yi bi mu ñëwee wàcce lal ay xonkam yo bi ma duggee si ndox mi ba génne sama juróom-ñaari nen ba def la may def dafa génn géej gi xajal ma waaw kunkaane boobu ngay wax dégg naa ni day def buzz mais nee na ñu xamul dara ak day naxaate keroog sax gis naa benn sëriñ bu ko doon mais lu tax nit ñi di continuer di ko gëm waaw yaakaar naa ni ku ñu nax benn yoon duñ la nax ñaari yoon Tange man xam nga lan laa bëgg en 2011 ba tey. waaw maa ngi liggéey. waaw liggéey bi musuma jëndal sam bopp bi avion Sénégal ak may seetaan. waaw te voyagé naa 11 voyages yoo xam ni si ay poosu nit la jugee. Mhm. ànd ak équipe nationale Sénégal di représenté sama drapeau dëkk. 2018 yaa ngi woon Russie. maa ngi woon Russie avant 2018 dem naa Coupe d'Afrique. Mhm. en Gabon. Mhm. ma ànd ak équipe nationale Sénégal. li ma ànd ak équipe nationale Sénégal. tegle wu si trois défaites ndax jël nañ fi yóbbu fi ay sëriñ ñu tegle fi trois défaites. léegi ñu xool kii mooy Kunkandé kii waa jëmm ji la waa kii moom ban genre melokaan la di yi lan moo ci nekk ni di xam nga xam nga temps on doit euh, ñu wax euh, la vérité maanaam dëgg bi dañ koy wax hmm. gis nga tey yàlla mun na la cërale jox la xam-xam ndax nit ki fajee bisimilahi rahmaani rahim sax am na lu ko yàlla may waaye ab sëriñ dafa am ay comportement yoo war a comporté woo ndax man duma doon sëriñ ba pare bokk si xeetu Seydina Muhammad hmm. ne maa ngi jël ay lanti di ko def sama bët lanti de ko doon waaw yaa ngi dégg baax a baax te yàlla nee na góor buy kii xam nga lu tax mënaguma kaa tontu jaxal na fi xam nga lu tax mënaguma kaa temps hmm. dama bëgg mu toog plateau ma toog plateau ñu jàkkaarloo ku si nekk wane li nga mënee waxuma ñu ñëw di di théorie de maanaam di wax di pratiquer dañuy indi ay kiraamatul ay ni si biir plateau bi comme que moom nee na il a pouvoir pouvoirs il a hmm. léegi dama bëgg moom wan ma lan mooy magie waaw mais magie lu xus la rek dañ koy jàng waa dégg non kiraamatul ay ni moo xam nga tey maanaam Idrissa Ndiaye jël kaasu verre di ko lekk di ko lekk ba mu jeex dama bëgg moom ñu toog plateau man ak moom mhm. ma wan ni ko man jinne laa ma wan ko man jinne laa parce que moom moom li muy def nii maanaam day day day day day day affaire folklore rek lay def affaire folklore rek rek rek rek lay def parce que day nax nit ñi day nax nit ñi daf ñuy gëmloo ni maanaam loo xam ne amul te Ndakaaru dafa am ses maanaam Sénégal dafa am ses réalités Sénégal kër kilifa diina yi tedd yëpp ñu ngi fi moom lu tax la mu bëgg a woote woote ko Guinée. parce que maa ngi dégg Koumkane turu dëkk la. waaw yow déggoo lu ma la xanaa. Koumkane turu dëkk la. Euh, temps bi. waaw vidéo bi commentaire ma. waaw fii euh, benn site internet ñoo ma seet si woon Thiès sama sama appartement Grand Sandi ñu ne ma dañoo gis ni leget da nga koy taal ba mu tàkk mais dañoo bëgg nga wan ni leneen lu dul loolu. ñu sonal ma sonal ma ñu jox ma kaas bi ñu ma joxee kaas ma jat kaas bi wax li may wax si kaas bi lekk kaas bi waaw ah, kay da ngaa lekk kaas bi ni bu ba xool si terminal vidéo bi nga xool su ma la nee nga defal ma ko fii di ma ko defal <laughs> yàlla baax na non dama ne mën nga ma ko defal fii soo ma xabtalee ma def ko dama ne ndax mën nga ma ko defal fii déggoo lu ma xanaa soo ma xabtalee ma def ko Idrissa balaa may gëm ni tey sëtu lëg daawur nga da nga doon lëg daawur da nga ñëw géej kunkaane dàq la da non dàqu ma de man maa ko dàq mu daw nga ñëw génnee say nen teg say jajj mu li nga def nii dama bëgg nga defal ma ko léegi kaas bi ma yor nii soo ma ko indilee bu mel nii sa plateau ma def ko sëggal ci suuf dugalal sa loxo ci suuf ta bi demal côté li Kaasandoo fii c'est la magie de la télévision. baax na ñu ngi daw ñu ngi daw si émission bi dinaa la ko defal ci kàttanu yàlla. incha allah kaas baa ngi nii. bëgg naa nag balaa ñu fiy jógee rek. Mhm. dugal ko ko sa ginnaaw de yaa ngi koy sang. <laughs> d'accord mais dinañ ko def. ci kàttanu yàlla tey dama bëgg. xam lan mooy différence su sacrifice ak sarax. Euh, sacrifice ak sarax. Mhm. sacrifice lan moo koy waral dee fois. Mhm. <clears throat> nga gis nit ku nekk si ay jafe-jafe. jafe-jafe. wala nit ku siiw koo xam ni maanaam tey am na ay nit yoo xam ne ay ponkal yoo xam dañ koy fexeel pour fay turam mhm. ñu gisal ko ne ko lii kat su ko defee day baax si moom mhm. parce que ñaanu waajur kese doy na mhm. waaye dañoo toll si guddi goo xam ne maanaam sëriñ su def si katalu bon bi dañ fee bëri te yàq doomu Adama Ndiaye fay doomu Adama Ndiaye da leen a jaral lu ne gis naa koo xam ne tey jii cinq cent mille lay yeewoo cinq cent mille yëpp su xëy lu bon la si def ci sëriñ la ko yóbbu bugguma diw avancé bugguma diw xëccu ma si lenn te cinq cent mille yooyu soo ko jëloon yóbbu ko ñu defal la si muuslaay aar la ci lenn li nga dem denc ko si sa biir compte da lay jural dara kooku ngay bañ mu raw la du la mës a raw ndax cinq cent mille bi ngay dépensé tey jii maanaam di si yàq doomu aadama jaay gi ka ngay yàq mu ngi lay raw léegi